daara Hizbut Tarqiyyah ni mu ko baaxoo defee yeesalaat na ko ci julli it ji atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar dëppook 13 mai 2021 ci Touba ginnaaw bi ñu teewee ci barabu jullikaay bi jëw jëwriñu daara Hizbut Tarqiyyah Serigne si jóob ànd na ak kuréel bi ak leen di ci membre yi dem ci Daaru Minaan kër Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké nit ki moom su gisee ne lu baax wam man nañ ko ba yóbbu ko ci te du dooleem du juddoom du kattanam du mën-mënam du lenn lu dul ndimbalal sëriñ bi kon sant sëriñ bi rek kon kii la ñaan mu yàgg fi ndax mi ngi liggéey liggéey boo xamante ne ci lislaam euh, moo mën a dimbali nit ñi li ñu bëgg te di ko wut te mënuñu koo ñàkk moo ñu ko mën a may waaye yoon yi wër defe ne yoonu xëccoo la wala yoonu euh, sàkku àdduna la wala yoonu parparloo la yooyu yëpp du maye dara. ñu teeroo ko nag njàngum xasida mu am solo moom sëriñ bi. mu ñaanal kuréel bi rafetlu lool taxawaay bi ak liggéey bi ci teewaayu jëwriñu daara Hizbut Tarqiyyah Serigne si jóob bokk na itam ci yi nga xamante ni dikkaat na ci te fàttali ko moom jëwriñu daara Hizbut Tarqiyyah Serigne si Diop muy kàddu yi nga xam ne Cheikh Mouhamadou mun Mbacké yëkkati na ko ci jullikaay bi te lépp di ay soññee ak i dàgg yu jëm ci mbooleem taalibe yi yaakaar Serigne Touba. waaw xanaa sant rek ak soññuwaat ndax sëriñ bi moom euh, dimbali nañu. gindi nañu sóob nañu wamman nañu ndax ku déglu waxtaanam mi wax tey ji xam ne mooy doxinu daara ji futti ko ci mbubum àdduna ndax dafa woon alxasdu li wajhillaahi waaw futti ko ci mbubum àdduna jublu suñu borom loolu mooy suñu yitte ba nañ ko ba ziar bi ñu koy waaj a def noonu lañ ko tuddee mooy slogan bi kon euh, sant yàlla rek. li ko moo mottali nag di li nga xam ne mooy cant gi. ak ziar yi. ak nuyoo yi. ak itam nemmi konte ak baalu àq yi nga xam ni dox na ci diggante daara ji ak mboolem kilifa yi nga xam ne daje nañu fa ak ñoom ak bokki taalibe yi lépp kon jeexe ci mbégte mi nga xamante ni mënees na ni bokk na ci mën a màndargaale jeexitu suba googee amee woon ci Daaru Minam ci teewaayu Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké xalifa général des mourides ginnaaw jullit it gi